يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ay bismillah bismillah bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi <laughs> mbokk yi man la Mariétou fii ci Saveurs Planétaires macha allah fas yéene dellusiwaat ak yéen tey ci kàttanu yàlla di leen ziyaar yéen ñëpp di leen wàcc seen wàccuwaay di leen ñaanal yàlla yiw àddina ak àllaaxira mbokk yi gis ngeen ni suñu yuubi yaaba yaa ngi nii euh, macha allah moom lañ leen euh, proposé ci kàttanu yàlla pour euh, ci korité bi yal na yàlla may ñu ñun ñëpp ñu fekk ko te tal ko gis ngeen ni defaral nañ leen suñu ay brochette de poulet ak brochette filet mignon jëlaal tàll suñuy côtelette may ko ci benn petit tàllal ni ñu ko fi baaxoon defee rek foofa ne réel ñu ni déet na waaye ñu may leen fi suñu benn riz pilaf boo xamante ne iranien yi ñoo koy defar jàdd ba ne ca bopp koñ ba fëlee ca kaw ne may seen ca mbaay mbaay ba may leen fa suñu benn salaatu chou maanaam daal nañ ko wax rek benn crudité euh, boo xamante ne ma nga toog fa muy toog ànd ak kay boppam voilà di leen ñaan rek ngeen topp ñu incha allah ñu tàllalal leen ingrédients yi one by one aywa salaamaaleykum aywa très bien macha allah mbokk yi macha allah en attendant suñu côtelette yeeg ak suñu euh, brochette yi di dégg jàmm incha allah ñu ñëw defar benn salade encore crudité bu gaaw euh, boo xamante ne macha allah moom tamit lu wér la nee naa leen moom euh, bu ñëbul rek fi mu nekk ni bàyyee xel ñam yu woyof yi nga xamante ne <laughs> jot na nag te léppay faj macha allah voilà donc gis ngeen fi nii ñu fi ak suñu chou rouge. fii euh, dañ ko chouret euh, ci kii bi daggat daggati ko cop cop cop ñu ngi fi ak suñu euh, chou bu vert bi carotte râpée gis ngeen ko nele fii ñu ngi fi ak suñu radish radish ñu naan ko radish en anglais fii ñu ngi fi ak suñu concombre bu ñu ràppe mi ngi nele li nii ñu ngi fi ak suñu poivron bu rouge bi poivron rouge ak fële ñu ngi fi ak suñu soble bi voilà soble bi moom tam ñoom ñëpp la ñu boole émincé leen donc gis ngeen fii nii ñu ngi fi ak suñu paprika gis ngeen ko nii paprika bi tuuti du sel paprika bi mooy fël-fëlu Maroc bi euh, fii ñu ngi fi ak tuuti suñu poivre rose bi nga xamante ne que euh, maa ko ci bëgg a sànni kum neex nga def poobar boo am lii laaj la gis ngeen ko moom it xoos nañ ko dañoo bokku si ci coow li fii ñu ngi fi ak suñu ju euh, nu mu tuddati canola oil donc huile bi mën nañ mën nga jël huile végétale bu la neex parce que dañuy xaw a tiital laaj bi tuuti pour salaat bi fii ñu ngi fi ak suñu. jus de citron gis vous ko ni dañuy soxla touti le rek euh, pour mu ànd ak suñu ñamato ci daal di cuxum cuxume foofa daal di toj. très bien très bien machallah voilà donc je disais tout à l'heure maintenant on passe à la salade euh, rapidement euh, c'est une salade crudité composée de chou rouge chou vert là on a des carottes et râpées hein, il faut tout râper des carottes râpées des radis râpés. Euh, de l'oignon, des oignons rouges, euh, poivrons rouges et concombre. Voilà. Et là, on aura besoin d'ail. Ça, c'est de l'ail que j'ai râpé aussi. Voilà. Et là, on a du paprika, un peu de poivre rose et du sel. Voilà, maintenant. mbokk yi gis ngeen ko ni ñu ne ko voilà voilà vous voyez ko nii ak laaj bi mi ngi voilà là on a un peu de sucre ñu am lu tolloog ben kudd bu ndaw ci suukar rek voilà bu leen ragal suukar bi mu voilà et là j'ai chauffé un peu d'huile hein. et ça c'est pas l'huile d'olive c'est c'est canola oil voilà vous pouvez prendre huile euh, tournesol ou bien voilà mbokk yi gis ngeen ni ñu ñëw ni gis nga sànni nii bi voilà voilà très bien ci way su ko defé ñu jël ni suñu jus de citron voilà mi ngi donc salade bi du am vinaigrette yi moy nek ay yóbbu bam yi nga xamné ci la fas yéenee kifin su ko defé nak ñu bolé ko may ko jaxassé mélange mais dañ koy frotter bien bon hein voilà mbokk ñu ñew ah, jaxassé mélange très bien mbokk yi gis ngeen ko ni gis nga ñi ngi fek suñu ben salade bu coloré machallah bu coloré macha allah macha allah wala quwwata illa billah léegi gis ngeen nii dañ koy bàyyi nii mu macéré voilà léegi li may def xaaral ma dompat nii ci oignon vert bi tuuti rek de scallion daal di dompataale ci diil bi diil mooy aneth voilà ku ko amul nga dompat tuuti persil rek pour yokk yu vert yi rek affaire bi gën a yéen a ma gën a xam ma ne ko ci yéen ma gën a xam macha allah dèjà mi ñu jox couleur bu rafet a rafet a rafet a rafet macha allah wala quwwata illa gis ngeen ko nii. Voilà, donc je viens tout juste de mettre un peu euh, d'oignon vert, les spring onions de Cébette et un peu de Annette voilà Annette macha allah macha allah voilà donc on laisse macérer ñu bàyyi ko nële yëf yi gundus gundusee ñu dem songi leneen foofa daal di toj. merci oh, très bien macha allah très bien. mbokk yi léegi gis ngeen ni suñu marinade bi ñu fas yéene defee suñu euh, mix grill bële muy euh, suñu brochette yeeg côtelette yi lii nii euh, paprika la paprika mais bi pat bi la mooy bi ma leen di wan boobu ba léegi donc mooy fël-fëlu Maroc bi loolu mooy ku ko amul jëlal bu pëndax bi the dry one Euh, gingembre là voilà gingembre que nous noonu lii cumin la li poivre voilà donc je disais euh, pour mariner euh, notre brochette et côtelette il nous faut de la pâte de paprika et si vous n'avez pas ça vous pouvez prendre le poudre voilà de l'ail puré, de l'ail de gingembre puré aussi du sel euh, du cumin et un peu de poivre. Voilà. Et là, je mets le jus de deux citrons. un peu d'huile d'olive voilà et on mélange le tout su ko defé gis ngeen laal la ci tout ci huile d'olive bi légui yépp lañuy bol, boole ya bay jaxassé ko ba mu ne nemm benn place ñu ñew nak euh, ne ko rel ci suñu bir kebab yële fofu daal di très bien gis ngeen ko ni am nañ fi suñu pat bi gis ngeen ko mi ngi ni concentré voilà maintenant on va mariner les côtelettes très très bien machallah la wala quwwata illa billah gis ngeen ni ñi ngi fek suñu côtelette yaa ngi ne di tege fi ñi ngi fi ak euh, suñu filet filet laa jël file wu nag file mi mignon mais ku mu neex mën nga jël sa gigot dañu euh, dagg ko ay cube yàpp bu nooy rek lii tuuti graisse la dama ko fa seene jamaale ci brochette yi benn bu ci ne fii gis ngeen ni suñu ganaar la tànk ci tuuti ci tànku ganaar gi euh, su ko defee ñu mën a am suñu mix grill léegi nag ñu ñëw may ko benn jaxase mélanger foofa teg merci mu ngoog léegi su ko defee nag ñu muur ko ne ko relli ci frigo bi ba subaam jàmm un peu d'huile d'olive ñu raay ci tuuti ci huile d'olive bi gis ngeen ko nii tey suñu marinaat bi dafa fas yéene xonq incha allah ne ko réel ci frigidaire bi ku mu neex nga bàyyi mu fanaan ku mu neex nga mariner ko une heure de temps voilà comme vous voulez. aw ah, très bien macha allah mbokk yi comme ña nga fële di wàjj dama profité léegi rek bëgg a defar benn riz pilaf riz boo xamante ni iranien yi ñoo koy defar gis ngeen li ni ceeb bi basmati la basmati rice bi moom laa jël ni xooj ko tuuti rek pour mu noyyi. donc gis ngeen fii suñu pédalu safran yi moom laa jël xooj ko fii ni tuuti ci ndox mu tàng pour mu fireeku voilà bi dañ ci laalaale tuuti ci seen lentille yi xam naa lii euh, dina baax tam xale yi gis nga ko lentille bi dama ko baxal tuuti rapidement voilà euh, fii fii euh, dama jël soble donc soble laa jël saaf ko tuuti ci diwlin oignon daal di jëlaale fruits secs lu mel ni prune non pas prune baal leen ma daat mooy tàndarma bi daat dama ci laal tuuti tàndarma Euh, laalaale ci tuuti ci abrico bi voilà abrico la ak tàndarma ak euh, soble bu ñu saaf ba mu wow ak euh, cranberry mooy cranberry voilà ku ko amul mën nga jël raisin sec donc gis ngeen lii suñu tuuti diwlin la ak tuuti ay voilà gis ngeen ko nii donc li may ñëw def ci damay ñëw sote si ceeb bi tuuti rek saaf ko mu xaw a tiit noonu rek tuuti mu bañ a bari parce que bu ñu ingrédients yëpp fi lañ ko voilà rapidement un peu de riz pilaf iranien donc là euh, je vais sauter le riz ça c'est du basmati voilà que j'ai trempé 20 euh, minutes dans de l'eau ouais pour aller plus rapide voilà et eh, très bien ma assaisonner un peu de sel voilà juste un peu pas beaucoup gis ngeen ko noonu may ko benn petit yëngal nii su ko defee ñu jël lentille bi voyez c'est de lentille des lentilles nekk ci réel li yëpp xaj na ci voilà oh très bien ñu jaxase leen voilà on mélange le tout voilà voilà maintenant je mets de l'eau chaude

léegi gis ngeen ko nii li may def dañu jël suñu yuubu yaaba yi muy suñu fruit sec yi gis ngeen ko nii voilà ak suñu oignon fruit ak soble yi ñu kii woon ceeb bi ñoragul dafa tiit rek su ko defee nag ñu daal ñëw nii jël ndànk suñu ndoxu safran bi am fuñ ko sànni ak fuñ ko bàyyi comme ça ñu am ay couleur mu xaw a mélanger tuuti voilà Terebi. merci way légui feu dou lañ koy def dañ koy def feu bu ndaw bay ko fofu muy gundus gundus oh, très bien machallah très bien mbokki ah fofu tojna gis ngeen ko ni ala merci way gis ngeen ko ni ah kaf ka nga am de ni lañ ko bëggé won machallah gis ngeen ko ni ah voilà très bien daanaka yak jot na de merci très bien machallah allah très bien oui léew mbokk yi gis ngeen ni suñu salade baa ngi nele machallah suñu ceeb a ngi ni gis ngeen suñu côtelette yi ñu fi jëlone lañu ko fi ben traversé gis ngeen suñu bi moy brochette filet mignon bi bi moy brochette ganaar gi waaw léegi comme noonu la comme côtelette bi dafa làqatu <laughs> xaaral ñu feeñal ko negal ñu feeñal ko rek newaat yóot dénga maam beneen rek mel ni ku xaw a surchargé tuuti rek aw kañ def ko nii la petit jal foofa daal di toj très bien macha allah wépp liw macha allah wala quwata illa billah mbokki mi ngi de fii da la ñu génne tey saveur planétaire li lépp ci kàttanu yàlla ngir waajal rek euh, korité beeg jàmm yal na yàlla may ñu ñu fekke ko te tal ko ñun ñëpp macha allah macha allah ñi nga xamante ne aay ñu ci ceeb Eh, ñu ñëw mëq ci salaat si ñi nga xamante ne ay ñu ci salaat si ñu dem ci ceeb bi mais man moom li may faral di wax tata Yande rek comme man euh, bañu ma dara euh, ceeb lañ ma toqantalee xam nga xam nga liir buy soog a juddu ñi dañ naan euh, na nga na nga toqantal zam ci gémmiñ gi man ceeb ak ay diwtiir rek ay kànja lañ ma toqantale ay boroxe moo tax fi mu nekk nii mooy loolu macha allah. très bien macha allah très bien. <laughs> mbokk yi macha allah wala quwwata illa billah suñu yuubu yaaba yaa ngi nii kii tamit mën na nekk ak ñu korité yal na yàlla may ñu ñun ñëpp ñu fekk ko tatal ko ci kàttanam ak ma ni la ma girmandeem boole ceeg lépp lu ñu ko jàmm woon ci koor gi rek mu nangul ñu ko macha allah ak geneen jour sax yu dul ci koor gi mbokk di wax ne que tey ji incha allah dañoo fa yéene dem ba Sacré Cœur mu neexee yàlla daal di yekkal ma dam loo waaw ma ne ko ci muy mama ko koy chéri wu mbay kan loo <laughs> doomi ndayu mbay ngay fay très bien foofoo ngay descendre